xayaatul munaa wa suul fi axdi ajrillahi taala war rasul maxaaliqu niiraan wa mafaatixul jinaan bismillahi irrahmani irrahim qaala alxadimu alabdu wa huwa ahmadu laa zaala inda biljamaali yuxmadu qaala alxadimu alabdu wa huwa ahmadu laa zaala inda biljamaali yuxmadu bismi ljamiilillahi wa rahmani النافع الرحيم ذي الأزمان الحمد لله الذي قد جمع زرنز مسعيا خالصا فانجعلا أحمده سبحانه فأشكره وبلساني وفؤادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل العدا والمكرا أخلد الشكر له والحمد وقطعي أني محا والعمدا وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعد بالتمنين سيدنا خليلنا الحبيب محمد من صمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبشر بلا مجال وبعد فالغرض وجه الله من لسواي ساق كل الله نويت شكره تعالى برجز وخيري ولي ودون مجز سماته مفاتح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مخدمات السور في أرض أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في شكر معبود له الداران وأسأل الله بحرمة النبي عليه صلى بسلام مبين كونا الندام دا لديه أكبرا رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه لي للجنان جنة وأن يكون فرحة للحور العين جنة عن المدحور هذا أوان للضراف للقدم لوجه ربي بالبقاء والقدم وما عند الله خير وأبقى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 wa jumaada al-uula wa jumaada al-saaniya wa rajabin wa saxbaana wa ramadaana wa shawwaalin wa dul qiadati wa dul hijjati miraaran tanziman wa ijlaalan laka wa xawfan minka wa xashyatan laka wa ittiqaa'an min doxtika وغضبك وابتغاء لمرضاتك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل يوم وكل شهر قليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة زاهدا لي بالتوبة النار وهي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعل كل ما كتبته قبل هذا اليوم عبادة مقبولة زكية لديك بفضلك وجودك وكرمك كما هو الدني بك يا أكرم واجعل كل ما يصدر من قلبي وقلمه وجواله من هذا اليوم إلى يوم لقائك أكبر رضا عندك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم واعصمني من كل ما يسرني أبدا واجمع يا جامع يا مغني بيني وبينك وهب لي كل ما يسرني أبدا مع كونك لي راضيا أني في العزمة والجمع والهبة آمين يا رب العالمين وأغني بك عن الأرباب وبه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأسباب يا مغني في الدنيا والآخرة اللهم إني اتخذتك ربا ووليا ونظيرا أبدا محمدا وسيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا ووسيلة إليك أبدا وأهل بدر رضي الله تعالى عنهم رفقة أبدا والمؤمنين والمؤمنات إخوة أبدا فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلام وبركة تجعل بها قصيدتي هذه من أحب الشكر إليك يا بديع آمين يا رب العالمين أسير مع الأبرار حين أسير وسن الغداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي خير الله عود مسير يسير بي الجسم الذي قادني إلى كريم عليه ما أروم يسير شكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجهد وهو شكور نزوري وتأييدي حزبي لدى الوداع من الواسع الوثاب فهو النصور أميري لدى عسيري ومكسي وسيلته خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نذوري كوني عبد ذي العرش وحده قديما لخير الخلق وهو نزير وكل سورة وهو asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ko déglu ngeen mbokku taalibe yi bëgg ngeen jàng alquran bu ngeen xam seen diine seen jot ñu moytu leen ko ngeen di laxasaay di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbali mel na noonu baaxil xamin learning seen plateforme électronique bu bees bu leen indil njàngum diine ci anam bu gën a yombee loolu nag mën ngeen si jàng film iji mën ngeen si jàng alquran ma ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme nekk ci àdduna bi ci seen i biir ci seen i business ci seen i waxtu yi ngeen xam ne féet ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu ngeen rëccu ci wàllu woowu indi ngeen ci nag ay borom xam-xam ñu ràññee ko ci yoonu lislaam ñu ràññee ci yoonu kuréel yi nag mbokk yi ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix ci fépp fu ngeen nekk ci àddina bi koor fekk nag li ñu ubbi ci weer wi ñu tàmbali lay nag amatul ndax jàng ñu wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com nag da def A L maanaam mën ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bi 77 mën ngeen woote ci numéro bi à partir des États-Unis 1 877 218 9413 ñu ngeen cee woote ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen kii jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi li ngeen doon xaar agsi na yónnee ngir mën a bokk ci liggéeyu jumaay Tuuba te Serigne Fallou Mbacke waxoon ne képp ku ci farlu say mbir dina feeñ ba faaw ku ci gën a jëf gën a jëm kanam gën a ëpp daraja waaye ku ci gën a des ginnaaw ginnaaw lay des rek ba faaw fondation Muxaddamatul Xidma taxaw na nekk fii ci Amérique ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ca Tuuba ngir yombal leen ci li ngeen gën a jàppandalee seen participation maanaam seen barkeelu ci liggéey yi ci jumaa ji gi muy lu jëm ci wàllu maintenance wattaayu màggal gi dundal weeru koor dundal guddi gàmmu saytu almeeru bàqiya yi si taxaw personnel bi ak yeneen ngir tàmbalee si weeru safar gi jàpp ci wattaayu màggal Touba mën ngeen a yéene seen ci site internet bi mën ngeen ci jëfandikoo seen crédit card paypal wala seen checking account lépp ngir mu jàppale si yéen ndax du lenn kenn lépp ñëpp la te képp ku ci feeñ dootoo nëbb ba faaw